asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Kifne TV eh, ñu ngi nuyu ku ne ci turam ak jëmam di leen ziar waaye di ziar kilifa diine kilifa aada yi ah, di baalu ñëpp ak ci weeru koor gi waaye di baal ñëpp tey nag ñu ngi fii ci Tëngéej Colobane Guy Murit eh, ñëw teewe li nga xam ne moo di ñi nga xam ne ñooy séddale ndogu ci weeru koor bi ñi nga xam ne nag ñoo di émission tolluwaay jamono chaque jour rek actualité la ñuy dox li nga xam ne moo tollook jamono tey ci nii lañ ñëwee yéen ci beneen anam mbokk damay bàyyi rek sama caméraman topp ma ma dugg ci ñi nga xam ne ñooy séddale ndogu yi yàgg koo def lool euh, cameraman bi na ma topp rek ñu xool. man maa ngi nii ba léegi léegi fii laa dëkk jàmbaar aw ma kayit. asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay fay bu baax kay. bi nan la. Xaadim Gaye la. Xaadim Gaye waaw. waaw sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu. léegi nag tey dañu ñëw fi nga xam ne moo di seen koñ di seen gox Euh, fekk si leen ngeen di def euh, li nga xam ne moo di ay ndogu di ko séddale ci mbedd mi mu doon social ñu leen di laaj rek euh, lan ngeen ci lan moo leen ci motivé ba ngeen koy def. waaw waaw lii de wax dëgg yàlla ba nga ko dalee def moom yàgg na lool. Mhm. waaw daanaka ay ati ati ñu ngi koy def. ko daana weer boo xam ne weeru promotion la. Mhm. te weeru jaamu yàlla. Mhm. te weeru weeru njëkkante la dem teg si. nga weer boo xam ne suñ borom dana moo koy fayal boo xam. moo tax ñu bëgg def si def si ay ndogu di ko jox jaamu yàlla yi am na ñoo fiy jaar am na ñoo gisee waa ji mhm. am na seen loxo jotul seen ginnaaw mhm. ñu bëgg leen jàppale bëggee waaw ah, ñu leen ciy laajte ndax dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw di leen jox ay ndimbal pour ngeen di ko def wala da ngeen di demee ak seen progrès seen doole waaw li si njëkk moom maanaam suñuy doole la ñuy njëkkee mhm. waaw ku ñu siy fekk ñu ma ñi nga xam ne maanaam yàlla mën na leen gan maanaam ñu soñ leen ci maanaam fi ne juróom ak suñuy fukki dërëm ak suñuy cent njëkk ko see jëf dajale ko waaw ci ay xale yu góor yoo xam ne bu ñu xëyee ndeysaan dañuy gis euh, ne ñu ci bëri fii la ñuy yendu te lii di kafe gi toog fii ci café gi ñoo ngi leen gis ñu toog est-ce que ñi nga xam ne euh, ñooy séddale kaf bari na ci ñoo xam ne ñu ngi daan seen doole fii ci li ngeen xam ne yéen a ngi koy def euh, di ko def ak seen doole ak loo xam ne da ngeen koy def rek te yàlla tax. waaw café gi de boo xoolee maanaam ñi fi nekk ñëpp boo xoolee seen i métier seen seen i métier lañ yor. Mm-hmm. ñi nga xam ne maanaam am na ñoo xam ne yoruñu métier mais seen i business bu bopp lañ yor nangam wax nangam mm-hmm. waaw. macha allah euh, duñ ñoo ko déggandoo waaye damay laajte rek ba tey ndax ndax ñu ngi ci biir koñ bi Guy Mouride euh, ndax euh, nit mas na leen ci fekk koo xam ne yàlla dooleel na ko mu gis lu baax li ngeen def parce que bu dégg ay at yéen a ngi koy def ndax mënuñoo xayma at bi mu commencé ak léegi ndax mas nañ leen fi fekk se jox leen dimbal ne la comme te mënuñu koo wër di ko joxe ah, dañ leen ko bëgg a jox yéen ñi nga xam ne yéen a ngi def lu baax ndax mas na leen fi daal. waaw waaw waaw boo xoolee maanaam suñu maire bi nga xam ne moom moo fi ne mooy Albindooy mhm. maanaam daan nañu fi dimbali mhm. nag gisaguñ ko mais soob yàlla xam naa dañ ko gis mais ah ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay ay fon boobu volonté ñi xam ne ñoo ne si dëkk bi ñu ngi siy dimbali ñu ngi siy dimbali lool lool lool kay waaw sëñ Xaadim di la jaajëfal bu baax ah, ci euh, di la tamit déwénati ci weeru sell bi ah, di kontaan bu baax ah, di wax rek yàlla na fi yàlla yokk doole ak dooley poos ndax dafa jafe lu mel ni ay jeunes di ko dajale di ko def mu doon lu yàgg ñu ngi leen ciy ñaanal sax ñu lay jaajëfal bu baax parce que lii mënoon nga ko yóbbu yóbbu beneen koñ ah. mais da xam ne fii nga dëkk mm-hmm. te fii sa koñ la ñu ngi leen seen télé bi maanaam doon tele bu mag a mag ba ñuy dégg yeneen télé yu mag yi nga xam ne ñoo ne si Sénégal ñu dégg leen ko dara jay xaadimal Moustapha yi yal jaajëfal xam naa ñu seetaan ñeneen rek ñu xool ñi nga xam ne ñoo ne ci café gi roon ñu ngi lay nuyu oui maa su maa lay fay. di la ziar bu baax. oui yal na yàlla nangu ziar. bi. ñu gis euh, ron euh, ñu ci bëri nee nañ lii defe naa sa loxo jógu ci euh, ñu ne ci laaj rek lan moo leen ci motiver ba ngeen koy def. waaw gis nga dañu gis tey jii nii ba foo tourner partout dans ñëpp di ko def ñu toog fii tamit nekk ay zones yoo xamante ni am nañ engagement avec détermination ñu dugg ci mais nag biñ ci duggee ba léegi nii xam nga jàmm ak salaam lañ ci gis quoi vraiment mbégte contentement bu mot parce que gars yi boo demee ba heure doogu jot sax xol yi koy joxe day neex quoi loolu daal loolu daal dafa am solo la ci naka ngeen tàmbalee maanaam bana ngeen tàmbalee wala kastiloor wala baraad nan ngeen tàmbalee boobu ba léegi waaw benn cin bu ndaw lan tàmbalee def ko ñetti fan mais bi ñu demee ñetti fan yi ñu dem ba xam ne comme fi moom laxal gi moom lépp lu ñu doog lépp lu ñu dugg rek day rëy quoi ñu si lañ ko yaatal commencé teg cin lu mag li mm-hmm. waaw ñu gis waa koñ bi ñu tamit ñu ci bëri dañuy indi ay baraada ngeen leen di defal kafe ñu ciy ndogu loolu tamit lan nga ciy yëg waaw foofu dañ fay am dañu am fierté rek parce que defar benn affaire nii sa waa quartier soxla ko ba dem ba di ko rang di ko jël si loolu moom da contentement rek lañ ci am bu mat sëkk la jaajëfal maa ngi dégg tamit uh, sama naataango bi ma taxawoon ni sëñ Xaadim gay moom it nee na daan na gis ay borom doole yi daan fi ñëw ku ci mel ni sunu monsieur le maire Albendooy uh, daan na ko indi waaye nee na gisaguñ ko waaye ndax maire bu bees bi toog ndax mas na ñëw daf ñëwagum na fi non kooku moom gisaguñ ko mais Albé yaakaar dina ñëw insha allahu defee ni mu daan daan defee la koy defee rek ba léegi ngeen woon commencé woon kafe gi bu ma juumul ñu ko commencé 2013 ñu ko commencé waaw 2013 ñu ko commencé waaw def na ay at macha allah yal sant yàlla bu baax a baax di gërëm nag ñëpp ñu jàppale parce que tamit doomu aadama yi ñoom ñoo boo xoolee mm-hmm. tey jii nii ñoom ñoo ñoom ñoo a a dooleel quoi parce que kenn ku ci nekk da nga ciy di def sa ñax waaw ñu leen di gërëm di leen sant di ñaanal xam li ñu mën déwén yàlla di la ñaanal di la jaajëfal ndax ñun ci koñ bi lañ dëkk te xam nañ lu baax liñ fi def depuis mu commencé ba tey ñu lay ñaanal yow it yokku yëg ko ndax ñu ngi lay ñaanal gudd fan bu ànd ak wér ak yokkute ba nga dem di def yoo xam ne nii Marmite di kër bi ñuy wax ngay def di ko dem ci ay dëkki dëkki dëkki ñu ngi la koy ñaanal ci barke Seydina Mohamed ñu jàllaat ci keneen rek sama caméraman. sëñ Saliou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen fay. mën ngaa tourné. mbaa nga jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax a naka coono yi. alhamdulilah. ni ngeen di séddale ci koñ bi ak tali bi yow dañ la ciy laaj rek lan nga ci ban xalaat nga ciy wax. waaw sant yàlla rek ak kontaan ci ah parce que bañ ko def ba léegi franchement parler mos ñoo année boo xam ni dañ koo tëb bu weesoo jamonoy Covid bi année boobu ñu toog te tamit dafa nekk si ñun frustration parce que dañ daan gis ñu koy def mu nekk jàmm trop ah. ñu gis si ay ñoo xam ne dañ ci daan sant bu baax baax a baax parce que dañ daan gis ay nit ñoo xam ni jamono yooyu tali bi nekk fi dañuy jógee si usine bi war a ñibbi wala ñenn ñi nekk si tata bi heure ndog net fekk leen fi

négocier chaque jour te tamit bëgguñu ñooñu seen yaakaar tas moo tax lépp lu si daan def rek ñu gën cee am pas gën cee am yéene yokk ba tax na tey jii daal café gi yegg si fii depuis boobu léegi daal sant daal lañ si gis. macha allah vraiment solo ndax li wax rek dafa doy nee na euh, nga xam ne ñooy tata bu heure bi jotee fii la leen di fekk ñoom ñoo leen di jox ndogu bi waaye rawatina euh, booy xool biir koñ bi amoon na ay ndongo yoo xam ne bu heure bi jotee da ngay gis ñoom ñëpp fi lañ laan ñëw di ndogu see di leen ñi nga xam ne ñoo def li yàlla yokku leen ba ñu yëg ko di wax ñi nga xam ne tamit ñu ngi yor lu baax bëgg ko def xamuñu fu ñuy jaar nañ seet genre yu mel nii di leen jox ndimbali ndax joxe ci weeru koor yokku la yal na yàlla defal ñëpp jàmm ma bàyyi rek mu nuyoo euh, kii nga xam ne moo di Daouda Daouda ñu ngi lay nuyu. Ah, mbaa am nga jàmm. ñu ngi sant yàlla bu wér. ñu gis la léegi nga yor këll bi ah di laaj xaalis bi nu muy demee loolu. waaw loolu de taw feex la parce que loo xam ne nii dañ koy def chaque année. Mhm. te mu doon loo xam ne nii ñun ñëpp ñoo ci bokk yem. Mhm. këll gi moom ku ci def sa ñaar dërëm ak sa juróomi dërëm lañ yemale. Mhm. muy ki joxe million ak ki joxe juróom ñoo ci bokk yem parce que lépp jaamu yàlla yi lañ koy jox. macha allah parce que fii Baye Fall yi chaque année nii lañ koy defee. waaw mbir mi moom yaatu na. di wax ne moom yokkute rek ca kaw ca kanam. incha allahu rabbi ah, di wax këll gi ngeen koy yor ndax mas ngeen ci am li nga xam ne euh, koo tàllal mu wax la loo xam ne nii du la ci neex wala euh, dina mën na dem ba yow mi nga xam ne yaay laaj euh, nga bëgg a dellu ginnaaw maanaam bëgg a bàyyeeku ndax mas nga ci daje loolu. non mosuma ci jokkonteex lu mel noonu parce que kële gi koo ko tàllal ku nekk rek fierté lay doon ci moom. parce que day am yéenay joxe sax da ngay toog benn moment ci à côté de trottoir bi sax mais ñoom ñoo lay fekk si di la jox seen xaalis. parce que day am yéene gi. parce que maanaam yokkute la rek lu ji waay def lu nekk da ngay gis njëriñ li. macha allah kon weeru koor noonu lay demee lu ci waay joxe lu nekk lu yokkute lay doon waaye di wax nit ñi matt mee may xaw a rey nag di wax nit ñi nag euh, ñiy def lu baax comme ni ma ko waxee woon sànq ñi nga xam ne ñooy def lu baax nañ seet ñu mel nii ñu jël xaalis jox leen ñu koy joxe ndax joxe yokku la weeru koor lañ nekk sama cameraman dañuy xaar rek ñi di joxe ndogu yi ñu jël nga xam ne ñoo ne ci tali bi ñu doog a euh, Euh, ba tey ci bir euh, ñi nga xamne ñoy joxe café gi rek ñu fekk fi ki nga xamne moy seen mak moy seen papa di seen lepp euh, yag ak ñom lool ñu bayiko rek mu nuyo ak ñu do continuer papa ñu ngi lay nuyu. alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare kenn ku nekk ci touram ak santam. tur bi nan la. ma ngi tuddu papa Ali Diop. Papa Ali ñu ngi lay nuyu di la siyaare. wax deug yalla wa wa rond-point Darou salam wax deug yalla seen seen liggey dafa rafet. Mhm. Ah, suma ma yaakar naane de fin 2013 be be gemi yàlla tey boobaak léegi mhm. wax dëgg yàlla chaque année nii lay demee mhm. bo booba li waral lool nag euh, mooy déggoo mhm. ak euh, wax dëgg yàlla de seen biir ñu ngi rafetlu trop trop trop nag initiative bi am na ñoo xam ne ñi ko sampoon nag am na ñoo xam ne ñi ngi fi fi mu toll nii am na ñoo xam ne sama borom dogal na ñi ngi ci leneen ñeneen ñi voyagé nañu ñeneen ñi ngi ci leneen waaye wax dëgg yàlla li nasaraan bi naan l'histoire retiendra Euh, dafa rafet trop lii wax dëgg yàlla ku xam euh, rond point Darou Salaam wax dëgg yàlla xam ne si lu rafet rek la ñuy dox. di la ah. macha allah ba tey ci biir wax ji euh, ban message ngay sànni ñi nga xam ne ñu ngi def lu mel nii. ak ñi nga xam ne ñu ngi yor doole xamuñu fu ñu koy yóbbu pour daje genre mel nii ban message nga leen di sànni. message bi ñu ciy joxe rek mooy les bon volontés yi nga xam ne sans borom mën la noo leen leen dara. ñu leen ndaw ñi ñi nga xam ne ñi ñi ngi ñi ngi def lu mel nii wax dëgg yàlla ñi teg leen loxo bu ko defee dinañ xam ne ñii kat euh, ndegam bu ñu leen tegul loxo la ñuy jéem dara massa nag bu ñu leen teg tegee loxo bu wax dëgg yàlla day gën a rafet waaw wax dëgg yàlla ay dong ay dong lañ yoo xam ne yi euh, dañoo joxante cër seen biir dañoo respecté seen biir wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu trop taxawaay bi. macha allah message bi muy joxe mu ngi noonu ñi nga xam ne ñu ngi yor doole di ko joxe nañ jaar ci ñu mel nii ñu jox leen ko ndax wax naa ko waxaat ko wax waxaat nag du bari wax euh, di wax rek nañ nit ñi jàppale ndax weeru koor loo ci def yàlla dimbali la waaye di mes lancer message yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan waa Europe euh, ñoom tamit am nañ ci solo parce que am naa fa ay ñoo xam ne ñu ngi seetaan ba foofu waa Afrique rawatina waa Gabon sunu xarit yi fa nekk di wax rek ne képp ku am ci lu baax looy def nañ ko envoyé di ko jox nit ñu baax ñi mel nii ñu koy dimbalee néew di doole ci dëkk bi. salaamaaleykum kii Jibi Diallo ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay bu baax. Uh-huh. naka yi tey. mbaa am nga jàmm. am naa jàmm bu wér. Uh, nga xam ne nag moo di Jibi Diallo di seen mag uh, dégg nga léegi ñu ne moom moo waral kafe gi mooy segg uh, ba pare nekk ci anse Jibi lan nga ci ban ban yëg-yëg ngay am ci li ngeen di def. yëg-yëg mooy kontaan uh-huh. am ferte. Uh-huh. kontaan nañ trop. parce que affaire bi ci doomu aadama te gis nañ ne bañ ko defee ba léegi nit ñi jàppale le ñëpp ci jàpp.

non non non non. macha allah kooku moom mosu leen daal waaw mosu ñoo daal. macha allah dañ dañ dañuy daal bu mat sëkk. day mujjee des sax xaaj bi day des sax. yal na yàlla yokk ñu ci jàpp ñëpp dañ ci jàpp. macha allah am na solo moo koy segg. waaw maa ngi segg moom jaajëf mu doon mag nekk ko oyof ah. Mm-hmm. nee na mooy segg café gi ndax boo déggee. waaw léegi nee na depuis muy commencé ba tey mu ngi ñuy xaar. waaw am na solo. waaw loolu dina jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. I don't want to to go. Wait, wait, wow, wow. Ayo. Eh, eh, Ayo. はいまあそんなのでないああ、かわむるまい waaw yokk waaw yàgg yokk yàgg yokk rek quoi benn sens. am na solo. waay. ko. ah ma kan a di seen. sama nijaay damaa tere feeñ ci taxawaay. ay ceeb doo feeñ mburu yëpp di lekk moo de. booy bee moom moom nii mburu bu ndaw bi lekk. waaw noo allah yal na yàlla def jàmm rek. fi wala. Ah, force gam ne feneen laa jógee Babylone. Babylone nga jógee. Babylone Babylone. Mam eh, ñoo ba. Babylone Babylone. Babylone. yooyu amu ci <laughs> Babylon Live ayca Babacar. non yaa ngi dogu de. alhamdulilah xanaa Mbaye nga sant. Cissé. dama lay rey de la sant moo tax mu man dogu waaye mbokk yi fii la ñuy tëjee li nga xam ne rek mooy fii ñu teewoon ci Colobane Guy Murit ñëw fekk leen ñuy def euh, li nga xam ne mooy lu baax nee nañ joxe yokk weeru koor lu ci waaye def benn yàlla dala koy fulal ba fukk di leen ñaanal jàmm di wax rek yàlla na fi yokk yàlla na fi sax si barke Mouhamed di jaajëfal ñëpp ah waa euh, arrêt rond point Darou Salaam fii ci Colobane Guy Murit am na solo sama caméraman Nitro maa ngi koy jaajëfal duma ma fàtte ki nga xam ne moo di Ousseynou Samb di ko béggee bu baax waaye di béggee waa rond point Daaru yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo jiite lii ñuy def muy lu baax ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox di daje ci beneen émission bu demee nii incha allahu rabbi merci